kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ni ñu ko baaxoo rek euh, ñi ngi ak jëmm ju tedd sëñ Abdou Aziz Mbacke mu sëñ Modou Awa Balla bu mboroom Darou Mouhty teewal fii ci njabootu Serigne gépp ci bis bi nga xam ne Serigne Mountakha moo ko joxe ndigal fii ci Masalikul Jinaan ngir ñu wàccee fi alxuraan ñaan fi sunu borom kon Mbacke Balla ñu ngi lay nuyu di la ziar baax. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu taala wa nastainuhu wa nastaxfiruhu wa nastahdiih wa naudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya wala murshida lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina wa habiba qulubina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi wa sallama taslima assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh noo ngi leen di delloo ab siyaare di leen delloo ab nuyoo di leen assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo ñoon fekk fii ci Masalikul Jinaan mm, biig la ñu jógee Touba euh, ñëw fii waaye nag li muy guddi guddi bi ñu xëyee ñu ne gannaaw sëñ bi daa joxe woon ndigal ne fu ab taalibe nekk na dem daje fa ak mbokki taalibeem ñu def ñaan loolu moo tax nu ñëw ci Masalikul Jinaan ngir barkeelu ci bis bi bi ñëwee itam euh, bokk nañ ci njàngum alxuraan mi jàng ci xasida yi noo ngi ñaan yàlla subhaanahu wa Euh, yàlla na ko yàlla nangu euh, ci barkeb alxuraan euh, barkeb sëriñ Touba jàmm ji nga xam ne moom la sëñ bi di woote di ñaanlu yàlla na ko ci yàlla defal lu kawe njortam am nañ ci yaakaar ndax lu nu masaan digal rek bu ñu ko toppee gis nañ ci sunu njëriñ rawaate na ku lay digal te dégaloo la lu dul ak jaamu yàlla ndax ñaan jaamu yàlla la te ñu jublu loo xam ne lii ñu bari bu ñu la waxee dëgg mooy tiij nañu kon bu sëñ bi ne nan ñaan yàlla ñaan gi ñaan yàlla na ko yàlla yàlla nangu noo ngi siyaare ñëpp itam di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha itam yàlla na ko yàlla bàyyi te wéral ko euh, mu àggale ay yéeneem yéene magam yéene ay baayam te nu ak moom te bàyyi ko ak kattanam yàlla na ko yàlla defal yéene na ko lool yàlla na ko yàlla def te ànd ko moom nag. waaw Mbacke ci euh, ni nga xam ne noonu la adduna bi doxee. ci wàllu jafe-jafe yi nga xam ne moom am ci àdduna bi yëpp ak euh, problème yi yow nga miin loolu bu baax a baax. Euh, alxuraan bi nga xam ne moom la doon jàng fii yan solution la mën a indi ci daay yi nga xam ne ñu ngi tàkk ci àdduna bi jamono yi. xam nga euh, solution moom mooy dellu ci yàlla dellu ci alxuraan ñun fanu taxaw fi nu fi nu Sëñ Tuubaa bàyyi woon rek lañ taxaw te école bi ñu génnee mooy école Rasulullah sallallahu alayhi école boobu itam jàmm dong la. sëñ Touba waxuma la li li doomu aadama waaye li daan lore sax du ko lor bu dee jaan bu dee leneen lu mu mën doon sax dootu lor danaa génnee leen ko ba daan ngeen wàcc ko waaye mosu koo lor kon kooku kenn gënu ko bëgg jàmm jàmm ji nga xam ne nag moom la yàlla may mu jóge ci mag ñu baax ñi fi nekkoon noo ko war a suuxat noo ko war a dundal suñ ko defee fa lillaahi alhamdu suñ ko sàgganee nag daanu ko wutiwaat te wóoru daañu ko amaatam de kon nag yàlla noonu ko fi yàlla yàlla noonu ko fi yàlla bàyyi nag euh, alquran ndax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa kenn ku ne xam na ne euh, xeex bu mu mataan a xeex dañ koo tooñ waaye musu jug mukk attaqué ji tooñ aw nit da ngaa def lu yàlla tere yàlla digal ko ne ko demal demal nga nga dindi lool loolu rek la waaw kon jàmm ji nga xam ne moom lañ fi am nan ko sooxal te dundal ko suuxat gi ak dundal gi na ñett dong la <clears throat> mooy kii jiite réew mi ak ñi mu àndal ñi bëgg réew mi te jotaguñ ci ak ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ñooy population bi ñun ñett ñëpp nag buñ ko wutee yàlla mën na noonu ko jox. wut gi nag ñoo ngi ñaan ki jiite réew mi nga xam ne nun noo ko doyloo wateel ko jox ko sunu suuf jox ko sunu jaww jox ko sunu alal jox ko sunu sunu lépp jiital ko. te loolu yàlla dana ko ko laajaat euh, réew mi dana ko ko laajaat moom na jiitu ci loolu ndax mooy responsable bi kon na jiitu ci woote jàmm ak jëfe jàmm ak waxe jàmm ak doxe jàmm ñi nga xam ne nag ñooy opposition bi itam bëgg nguur bu mu leen taxaw tax ñu bëgg a euh, wax wala ñu jëf loo xam ne day andi way nun ñi ci des nag ah ñu jot suñuy carte kenn ku nekk fa nga jëm nga jëm fa ah, allahumma malikal mulk yàlla joxe nguur waaw kom mu ko jox rek nga jël ko te joxe nguur responsabilité bu rëy rëy lu toll ne lu toll ne lu toll ne Sénégal li fi nekk ci doomu aadama li fi nekk ci ñu baax li fi nekk ci ci ci ci ci lépp yàlla dénk la ko te yàlla moom lu mu la dénk dana la ko laajaat kon buñ la joxee dara te war la ko laajaat buñ la joxoon ab junni ne demal jëndal ma ca naa nga ñëw ñu di ko compter ak jox la million lu ci gën lu ci gën a kii buñ la koy laajaat isab kon responsabilité la boo xam ne bii bu nu delloo ci gannaaw xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee xajatul wadaa bi muy taggoo lam dénkaane nga xool si sayidina abubakarin bi muy toog li mu dénkaane nga xool sayidina omarul xataab li mu dénk nga xool bi fi sëriñ tubaa jógee radiallahu taala anhu cheikh amadou kenn ku nekk na mu yele woon ak xilaafaam nga dellu si ci li nga xam nun noo ko dund ko muy ku mel ne sëñ abdoulahad mbakke référence yu murid yëpp référence yu julli yëpp nga xool ni mu téye woon yoon yi ni mu ko yore woon bëggut kenn tooñ du tooñ kenn waaw loolu kon am nañ ay référence yoo xam ni suñ ci jaaree jàmm dana kon nag loolu rek la sëñ bi woote noo ngi woo ñëpp ci jàmm. ci euh, nga xam ne tubaab yi ñu ngi ko yàq adduna bi ci jumtuwaay yi xew léegi ci internet bi nga xam ne jël na ay milliards yu bëree bëri pour gàllankoor jullit yi. ci wàllu jàmm waaye gàllankoor leen ci seen wàllu njàngum alxuraan ba duñ mën a yor seeni njaboot ak yu demee noonu lan moo ci taxawaayu jullit. waaw xanaa xanaa xanaa xanaa euh, dellu ci njàngalem euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njàngalem Serigne Touba rek mooy euh, Cheikh Abdou Khoudoss Mbacké da daan wax ne lu ngeen man di jàngal gone yi na ci alxuraan jëkk na ci tawhid jëkk bu ngeen noppee leneen li ngeen jàngal leen ko xam nga fi mu toll nii mboolem ay woo ma gis mu am ci àdduna mbooloo mu juboo te jubuñu ñoo ko fi dañoo juboo waaye jubuñu loolu sëñ Tuubaa ko ne waaw guerre mondiale yi nga fi gis yëpp ay wi fi am yépp ñoo ko taal waaye muccuñ ci waaw ñun nag lii suñu waru gar lii suñu waru gar mooy mooy mooy jàngal gone yi yar leen def ci ñoom diine def ci ñoom ngor sunu ko defee ak fu ñu mën di nekk bu ëllëgee daañu daañu am jàmm ndax jàmm moom yàllaa ko yore te yàlla mi koy yore fa mu ko denc ab misil aggu fa am pexe aggu fa misil munu fa agg pexe aggu fa kon nag ndax sëñ Tuubaa liñ daj ci moom bëgg koo xañ waaye yàlla yàlla defal na ko jàmm defal nañ ko kon nag nan ko nan ko nan nan ko sàmm yii ñuy def nag muy internet yeeg mooy yeeg lépp doole la lépp xaalis la waaye yëmu yëmut fen du yem fenn ndax nun nan féete yàlla rek féete ak bi rek waaw buñ féete moom fi jàmm nekk yàlla teg ko fa kenn mënuñu fa fekk li li man daal li may jaaxal mooy nu wàcce fi ñu war a toog waaye bu ñu wàccut fi ñu war a a nekk buñ ko wàccu nekk ci lu nu lu yàlla digal waaw bu soobee sans borom lu mën di xew nun nu am jàmm Sëñ Tuubaa da daan wax ne eh, adduna lu mu yëngu yëngu yëngu ci dal rek lay mujj ndax dara baaxoowul yëngu di wéy nee na nag boo nee dégg nekk fa nga war a nekkee da fekk ci jàmm dégg rek waaw. waaw loolu waaw. kàddu gi euh, sunu mbokk yi nga xam ñoo nekk ci euh, Palestine ñu sonal leen trop ban message ngay lancé jullit yi ngir ndimbal loo xam ne daan ko mën a indi suñ mbokk jullit yi nga xam ne jamono bi àdduna bi ñu ngi leen di fitnaal di leen sonal ba amatuñ jàmm amatuñ dal rawatina seen wàllu jaamu yàlla. xam nga xam nga euh, li may lancé mooy ñu bokk ñaanal leen ndax nun danoo saggan nun jullit yi ba bëggee dëgg dëgg danoo saggan. ba ban am am amuñu moyens yi yuñ mën a taxawal jàkkaarloog ñoom te loolu loolu alxuraan dana koo digaloon dana waxoon nenu waaxidu lahum mastatatu min xuwatin wa min rabaatil xayri waaw turhibuuna bi aduwwallaahi wa aduwwakum nu war a lu ci jàng jàngal gone yi jàng nu ñu mën a défendre suñu bopp jàng missile jàng dawal avion jàng lépp jàng médecine mën a yor suñu bopp mën a taxawal suñu bopp mën a défendre suñu bopp yonent bi sallallahu alayhi ba jeex si xewee ak ay ay gëléem ak loolu dafa fag woon loolu lépp teg ko lu tax nun nu toog jàngunu ba tax adduna bi domina domination bi ñu def na ko ba mënunoo am benn pexe mënunoo defar fetal mënunoo defar jeex yi noo def dara nan ko defar toog na te bañ a xeex bañ a xeex déglu waaye nag yaafus gi adduna bi yaafus nun mu nun jullit yëpp wala bi dugg anandoo taqali ko kenn ku nekk di xiir sa xiirtante sa morom boo demee fee ña nga naan la ay wahabit ay ibadu rahman ay fallah ay arak nga dugg fi ñoo murid ñoo leen tijaan nangam kenn ku nekk jàpp fenn taxaw di xuloo ko xeex loolu su ko defee waaw bokkut ak leen yàlla digaloon hmm? hmm? bokkut ak yàlla yàlla lim nu digal mooy mun noo bokk alxuraanul karim noo bokk kaaba gi noo bokk waxtu juróom doo dégg mukk ko ne la tisbaar ñee juróom benn rakal noo bokk faatee ñoo bokk lépp kon li nu bokk nan ko bokk défendre ko li nu wuute ñu mëñu leen waaw suñu ko defee te jàngal gone yi yar leen teg leen ci aw yoon ñu mën a jàng te ci nga Sénégal li ko yàlla defal bëriwul de man li ma xam ci ay cadre yu nekk ci biti ñuy dawale avion ay mécanicien avion ñuy defar lu ne xam naa ko fi mu toll ñu nekk ci biti te tubaab bi leen jëfandikoo ñooñu bu leen jëloon utiliser leen jéem a taxaw ci góorgóorlu te mën nañoo défendre su te loolu itam adduna da da dafa àgg foo xam ne fii nit ki war naa góorgóorlu ba man a défendre boppam nag wax dëgg yàlla waaw waaw fi mu toll li lu dul ñaan doom munoo jàkkaarloo kenn koo xam ne kii yow da ngay taxaw yor fetal wala nga taxaw yor jaas góor ak góor lañ daan def la amatul day taxaw fii wiise sànni la loo xam ne lii moom ci boppam ma ngay nelaw wala muy yor kaasam di naan sànni la ko yow nga lakk te jéemoo jàng loolu loolu moo dul yoon nan jàngi nan jàngi léegi boo xoolee suñu dëkk yi gone yu ndaw yëpp ngi jàng ay ay ay yor saret ñee ngi yor ay ay ay ay apparenté wu wax dëgg yàlla dëgg la nan jàng alxuraan jàng fiq jàng tawhid ba noppi nag jéem a jàng nag lu nuy mën a jariñoo ci adduna nuñ mën a défendre suñu bopp nuñ jàng nuñ mën a béyee mën a lekk bu baax boo demee daaru muuti ba fi maam Thierno nekkee daf daan mbay mbay moo xam ne mii da koy faggu lu ne la ci daan daj te léegi mat tey la mbay gën a yomb waaw sëñ Touba boo xoolee ba muy wax vingt-huit francs ñuy defar jumaa ji loolu du woon woon du woon daf ko fagg woon fagg woon nag lu tax defatuñ ko xanaa toog di xoole rek waaw. boo bu ma xoolee waa Kër Sëñ Moustapha rek man man am na ay jamono xooloon naa ci vingt huit vingt sept personnes yoo xam ne yii ñoom ñëpp ay ay ay cadre lañu ñu génn jàng alxuraan yor ay maîtrisard ay ay licence waaw. kon cadre yi am na fi nu ñu fexee nag ba dajale ko jëfandikoo ko moo moo fi nekkut nu fexe ba dajale li fi nekk jéem a dajoo waxtaan teg ko ci ay yoon jariñoo ko. loolu moo fi nekkut ah loolu nag bu amut yaakaar naa pour pour ñu dem doon a jafe lool waaw ndax ndax ndax ndax wal takku minkum ummatun yad'una eh, eh, wal takku minkum ummatun kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar waaw wa tanhawna 'anil munkar digle lu baax tere lu bon organiser sa adduna jàngal ñi nga war a jàngal yar leen teg leen ci aw yoon hmm. suñ ko defee adduna mën naa dem waaye bu fekkee dañoo tasaaroo ne kenn ku nekk dem toog fa nga toog benn benn la ñuy jàpp ban jeex dem fenn. Euh, dañuy jeexale benn kàddu mooy message bi ngay lancé ñu nekk ci biti ndax euh, sëñ sëñ Aziz mi ku yàgg la ci biti xam réalité yi nga xam ne waa biti ñu ngi koy dund euh, ngir comparer réalité yi am ci bitti ak yi nekk fii sëñ bi Mbacke Bal loo ñuy wax. waaw xam nga biti bi moom dafa mel ne tukki bi barkeelu la ci noonu. ndax euh, sëñ Touba génn gim génn dafa mel ne man ci sama xalaatu bopp laa waxe nag waaw dafa mel ne barkeelu la ci nun ndax euh, murid yi Mali yeeg Côte d'Ivoire dëkk yooyu la njëkk woon waaye tasaaroo nañ ci àdduna bi yëpp tasaaroo gi ci àdduna bi itam lu baax la ndax tey man xaw ma benn dëkk boo xam ne bii daayira Sëriñ Tuubaa amu fa xaw ma ko bëriwul boo demee dëkk yi ci mujj mooy Brésil Argentine Japon ay Chine yëpp am na daayira Sëñ Tuubaa noonu dafa jàng alxuraan dafa jàng xasida dafa liggéey yor seen jaboot di andi waa Sëñ Tuubaa di dundal suuf donte ña fa nekk gëmuñu ko bëgguñu ko waaye nag Sëñ Tuubaa moom la mu waxoon ne man de dañ maa génne benn leen dong tax ñu génne moom mooy laa ilaaha illallaah Muhammadu waaye ñi ma koy def de dinaa leen fekk fañ ko fañ ma ko waaj ñi ma fañ dëkk danaan fekk wax ko fa te duñ ci mën dara te tey mën naa wat yàlla ne man mi leen xam xam dem fa xam naa ne eh, le sëñ Touba bëggoon ña nga ko fay defal ba demee te Italie fépp a daj ña nga fay jàng alxuraan ña ngay jàng xasida ña ngay naafila alxuraan laa xawma sax lool di liggéey di andi Touba te mënuñ ci dara li am solo li des nag moo di ay ay ay ay ay ay ñàkk ñàkk organisé organisation boobu nag état moo nu ci mën a jàppale. daa am bés benn bi ma wax benn tubaab mu ne ma yéen euh, ni ngeen tasaaroo ci adduna bi ni ngeen sonne nii xanaa da ngeen amut fu ngeen mën a liggéey amu leen suuf ma ne ko ah kay am nañ suuf su doy sax mu ne ma yéen a riis ngeen suuf ko ko am riis nga ma ne ko waaye amul ndox mu ne ma loolu état la waaw plan moom état la waaw.